Euh, léegi nag euh, man. dialogue Sonko. man Cheikh man Cheikh Ahmad Tijani Al moo ma moo ma fees. daf ñoo jàngal nañu bu xare jotee xare leen bu jàmm jotee dox leen jàmm ba mu mat. Euh, sunu camp am na ñoo xam ne bu Ousmane Sonko génnoon tey du nu ko comprendre du leen neex. à juste raison. waa déglu rek à juste raison amul ci réew le président c'est une incarnation impersonnelle yàlla la war di seet parce que yàllaa ko jox nguur bu ñu mënee dox jàmm ak lu jàmm jar ak lu mu mën a coûter nañu dimbali président mu dox jàmm ju da nga wax ne woyam rafet bokk na ci li gën a rafetal woyam mooy mu def sacrifice ba nit ñi xam ne def na sacrifice Ousmane Sonko prison bu mu ne sax Macky dafa veiller pour que mu nekk dans d'excellentes conditions jàmba tout hôtel bu ndaw la ni man mii suñu bu yóbbu mën dafa waaw c'est un hôtel ah waaw prison doole ah c'est un hôtel particulier ah fi mu nekk c'est un hôtel particulier mais qu'est-ce qu'on retient te loolu te loolu Maïmouna euh, man xam naa comprendre naa ñi mer ak ñi nar a mer ak ñi dul comprendre mais ñun ñoo wax président de la république ne ko une un dialogue inclusif ñun ñoo ko wax stabilité ñun ñoo ko wax fan ngeen ko ko waxee ban instance ngeen ko ko waxee ah ban instance ngeen ko ko waxee fan ngeen ko ko waxee yéen joxaguñ leen kàddu di yéen waa ah, ah, APR li nekk di daw ak Benno Bokk Yaakaar amu leen ci kàddu c'est le président qui pose ses actes vous n'êtes pas consulté ah, vous n'êtes pas consulté wu ma man vous n'êtes pas consulté lu tax wu ma lu tax nga ne je ne suis pas consulté consulté vous n'êtes pas associé mais mun a fan ngeen ko waxee ne dialogue euh, inclusif aljuma rek aljuma aljuma samedi ma woo neel yow tu es consulté waaw du man rek aljuma ma seeti président ma jóge fa woo Cheikh woo Pierre Édouard wax ak ñoom ah yow waaw neel yow mais président xam nga président lu ëpp lu muy def am na ñu nekkoon fii ci réew mi jël en charge le combat contre Ousmane Sonko est-ce que ces gens-là on leur a demandé leur avis euh, est-ce qu'on a consulté les instances du parti euh... est-ce que vous avez réuni votre secrétariat exécutif pour donner Maïmouna. mandat à votre président du parti pour engager ces discussions ma wax la lan mooy sunu problème waaw sunu problème ñun xam nga lu tax Ablaye Wade ne fi am quatre-vingt-dix-neuf ans dix-huit ans mu ne fi ba léegi am groupe parlementaire dafa am ñu ko topp déggal ko bu dogalee bu ñu gisee ne jaaduwut sax ñu topp ko soutenir ko ci ba tey bu waxee buñ d'accordul sax ñu ànd ceeg moom. léegi yéen nag la ma seen particularité. mooy li nga ma wax sànq ne ci biir di dingat ne ci biir di dingat ne ci biir di complot ak ñene ca biti léegi-léeg nga ne dóor leen fii dóor leen fii daw leen boor bi dem leen fële kenn newu fa taal leen fële xaalis a ngi nii njëgu essence a ngi nii ñun kat gis nga ñun lu ñu ñàkk ñoo ko xañ suñu bopp waaw parce que yàlla fu yërmande ndewul yàlla du fa wàcce xew may mun a ñun dañu soxor dañuy soxorante dañuy bañante Souleymane Jules Diop ñëw na liggéeyuma waxuma dara waaye bu waxee rek naa ci xëpp suuf xëpp ci yi kese mu neex ma rek duma ci seet lu gën ci man duma ci seet lu gën ci ñun duma ci seet lu gën ci réew mi léegi nag c'est le temps du président de la république man Macky Sall ci wàllu jàmm lu mu def ma jàppale ko ci lu mu def bu ma ci d'accordul bu dee jàmm Sénégal la ci wut la ci wut lu mu def ma ànd ceeg moom. alors Souleymane gore rek a fi des dara desu fi parce que ay place yu ñun ñun pare na ñun jeexal na ñu may mun a ñun jeex na de. ñun jeex na nu mu bëri bëri du ma juróom benn weer juróom ñetti euh, bu élection yi amee seen candidat gagné jeex na non ñun jeex na dama ne jeex na jeex na comment vous jeex na mooy le régime actuel le régime actuel du président Macky Sall et de ses hommes qu'il a choisis en fonction de sa la confiance qu'il a en eux de leurs compétences et de l'estime qu'il a pour dama ne ñoo loolu mu neex ñu mu naqat ñu jeex na